delloo njukkal le médecin chef district de Mbacké maanaam Mbacké ndaxte nekk na médecin chef mu ne ma man damaa bëgg a jàngiwaat renforcer samay compétence pour jàng santé publique ba pare di xeex aussi pour Mbacké am service gynécologie di xeex pour ñu am bloc opératoire amaana ñëwagut waaye loolu buñ bëggee bu ñëw tànn ki ku bëgg nag dana nekk meeru Mbàkke da jox takku laxasaayu dugg si kër yi wax ak nit ñi wax ak askan wi pour li ñu bëgg am kon nag damay daal bu baax a wax xel waa wi xam ne ñoom li ñu bëgg muy may yéene président na Macky Sall ndax Mbacke gi li tax mu wax ne dañoo war a góorgóorlu loolu dafa leer naaj ñi loolu man jàpp ma ne man lay waxal kon nag li des bariwul na leen engagé wu ànd nekk benn xam ne élection yi ñu jëm mën na wax te bañ Amadaba, l'élection APR, l'élection PDS, l'élection président Macky Sall, élection ñun waa Mbacké ñun dafa jot parce que le Mbacké dañoo perte temps bu bëree bëri bëri. 2000 2000 ba 2012 Mbacké la fi am mën naa tey bari ko am ñu koy am ab xale loxoom dagg fii ci dëkk bi kon ni dañoo jënd lycée bi 2012 ba tey jii lu baree bare war na feem amu fi bu fi amulee bu ko kenn jiw président Macky Sall loolu mooy dëkk nañ ko jiw ki nga xamante ne dañ bi amul initiative. na dem waa Mbàkke ñooy takku du coow du folklore du xaste du du du wante waxtaan la convaincre nit ñi xam ne tey Mbàkke daa jot ñu am maire boo xamante nii ëllëg day a nekk lu ne ci réew mi ndax maire Mbàkke indépendance laa wax biiru Thiam. ba ci Iba ñoom ñëpp yal na la yàlla yërëm te jéggal la ñoom ñëpp laa wax amul kenn ku su ma nee masa nekk maire Mbacke dong amul da ngay nekk maire Mbacke nekk leneen nekk maire nekk ministre nekk maire nekk député général bu mag ci réew mi di liggéey di xëcc ci kaw di indi Mbacke dëkk bii du ci ay wax lañ koy defaree. sociaux dañ koy waxee defaree nañu engagé xam ne daa jot ñun ñëpp ñu ànd bu élection APR wax naa ko sànq waa PDS ak opposition société civile var revas yi ouvriers mécaniciens yi jagadu caaf yi képp ku nekk ci réew bokk ci dëkk bi am nga si war a teg sa pour ñu ànd jàppante liggéey Mbàkke maa ngi dalal xelu ñëpp di xelal di dalal xelu askan wi xam ne liñ gëm ñun am nañ ci yaakaar du ba sëkk. te liñ fi def ci Mbàkke ji dama ne du ma ne kenn def fi de ci wàllu jàppale ndaw ñi waaye en tout cas ki ñu ko dégg fan yii mënul fay def sax asarem kon nag bu dee bilan dañ laajte te bu dee dama ne bu dee bilan a tout cas man li ma xam ci Mbacke budget Mbacke ñu jox ko juróom-ñaari at lu mu dee dee fii la 3 3 milliards 500 la boo ci génnee salaire ak yooyu war nga cee mën a def ay place publique boo nga cee mën def leneen ak leneen ak leneen kon vraiment jot na ñu xam lu ñu bëgg Mbacke nag yeyoo na ngeen am hôpital niveau 1 lu mu dee dee dee dee hôpital niveau 1 mu laaj mooy am laboratoire bu baax am radiologie bu baax mooy imagerie médicale am un bloc opératoire soxla wuloon nag ci Mbàkke fu ne nga samp ab poste santé boo xam ne doxut yàq xaalis la amul njëriñ wala laa jóg maa ngi leen di les alliés de la coalition Bokk Yaakaar bu baax a baax ndax su ma nee Benno Bokk Yaakaar du galo ba PS la Mawal Gueye mu ngi ci waa LD ñu ngi ci waa LDR Yeesal ñu ngi ci waa PIT ñu ngi ci ak AFP ñu ngi ci ak ñeneen ak